nekk ay frère fii rekk la amul fenn allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salaati hayya ala alfalah qad qaamat as-salaah allahu akbar allahu akbar laa ilaaha illallah allahu akbar allahu akbar alhamdulillahi rabbil aalamiin arrahmaani rrahiim maaliki yawmi ddiin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 fiiha sururun marfuuatun wa akwaabun mawduuca wa namaarixu masfuufatun wa saraabiyu mabsuusa allahu akbar allahu akbar sami allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd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 lasta alayhim bi musaytir illa man tawalla wa kafar fa yucadibuhu allahu alcadaab alakbar inna ilayna iyaabahum summa inna alayna xisaabahum allahu akbar allahu akbar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 asalaamualeykum. asalaamualeykum. finaa bi jaahihi fi ala kulli ma la tuhibbuhu wala tarda hatta nalqaaka raadina mardiyina amin ya rabbal alamin